Hmm? lu garaaw laa la wax Tapha Tine xoolal Tapha Tine nañ ko dooleem nangul nañ ko état am mais mi ngi bëri combat bu gën a ci carrière am. Boy Nar lan moo tax nga ngi bëri combat bi gën a ci carrière parce que Balla Gaye 2 bu nekkee Sénégal dafa benn hygiène de vie boo xam ni turam moo doy waar. Balla Gaye 2 dafa demoon ba mujj gi moom Balla Gaye 2 da koo dépassé. Mhm. suñ toogee ma ne ko est-ce xam na ni ba nga daanee yëg ni nekkatoo mbër léegi dund buur ngay dund. Mhm. bul fàttali sportif nga li ngay dund nekkatul dund sportif dund buur ngay dund da ngay tëdd nalaw gars yi wër la boo génnee nga génnee saaku xaalis buñ la may nga taxaw di ko maye di ko maye ba mu jeex da dem wutiwaat mel ni ma ne ko bul fàttali sportif nga. bala Gaye de dem ba làmb découragé ci moom ñu indi ko UNICEF muy def lu mu musul def mooy lan day récupérer day nelaw day lekk day nalaw day lekk di naan du génn mu ñam loolu neex mu ñëw daan ci Modou Lo léegi looloo tax mu ñëwaat. lan nga ba muy ba ba lan nga jàpp ne fi woon jeexal nga fi ñu ko woon jeexal nga. fiñ ko waxee woon sol na ndox foofu la ñëw àndam lu bett ñëpp foofu la delluwaat hmm? moo tax Tapha Tine ku ko am nga combat dalay nax da koy nax mais boo naa la moo tax ngeen Tapha Tine am na combat ci diggante ak Balla Gaye numéro 2 lu tax loolu parce que Balla Gaye 2 fi ñu ko waxoon sol nga ndox fi ñu ko waxoon jeexal nga foofu la ñëw fekk waa des arènes dem làqatu fa ñëw indi ca làmb ji lu bett ñëpp daan jënd bu ñëpp tey foofu la delluwaat xam nga tafaatin xam nga tafaatin keroog dafa def benn bo loo xam ne ci jàkkaarloo bi. dinaa la loolu moo teg loolu loolu tey suma ma àndoon ak Tapha Tine dama wax naan jawul ngay bëre dama nga ñibbi mooy ba mu ba ko Balla xëy sëkkatalee jóg ñu dox daje ba Balla Gaye bu bu ma laal Tapha foofu daa waroon jël Balla Gaye paqueté ko ca biir tëggat sabal adduna mais foofu rek da ngay xam ni dangay xam ni wallahi Balla Gaye 2 moo ko gën a nekk ci làmb ji Tafatine boobu ta Tafatine dafa ñëw dafa ñëw dem dem Côte d'Ivoire ñuy gis lu yéeme ci wàllu musculation ci wàllu at atrophique tiital ñëw xam nga sénégalais bañ découvrir musculation yàggul mais ba combat bi di dox ba léegi saa yooyu yeewoo da ngay gis Balla Gaye moo gën a nekk Tafatine ci bi làmb ji. yegg seegu ma ci doole yegg seegu ci contact waaw. naar boo Tafatine gën a a nekk ci làmb gi taxut taxut Balla Gaye daan Tafatine. dama waaw waaw non loolu laa la wax non dama dama lay wax li nga xam ni li li li ci ëpp su amee soixante dix pour cent mbër bi mën na am ndam mooy mbër bu nekk ci làmb xanaa xamoo Fadam ah nga ëppoo ma doole nga gën maa nekk Tapha Gueye deux lan lay yi du doole daf leen gën a nekk daf leen gën a nekk ci làmb ji Tapha mu doon ni juróomi at xale yi muy daan yëpp bu Tapha Gueye amoon doom mën na leen may jabar mais lan la leen di taaree daf leen gën a nekk ci làmb ji. làmb làmb dafa complexe Fadam xam ma la làmb entraînement da cee bokk confiance da cee bokk contact da cee waaye nekk le jour ji ak fi ngay bëree ak moment bi ngay bëree jik la daf cee bokk. xam nga wax naa la man man wax naa la man li ma def ci làmb yëpp ndakaaru daf maa jik waaye saa yi ma génnee ndakaaru ñu daan ma. loolu dama ko wa mhm. Tapha Tine lu ko waay munti wax ah Tapha Tine Tapha Tine Tapha Tine fajam yeewul Balla Gaye di da ko def loo xam ni lu doy waar. démb bi nga gisee tuus Tapha lan nga yëg bi nga gisee Tapha Tine tuusam lan nga yëg booy naan. dama dama dama gis dama gis dama gis kuy yëg boppam kuy jaayu. Mhm. dama gis ku pare kuy jaay dama gis ku am état bu baax kuy jaay mais dafa am lu ñuul ci soow bi. loolu lan la. saa yu jax saa yu taxawee waa dañuy gis leneen te bëriwul ak ñun bëriwul ak waa Salba bëriwul ak waa Côte d'Ivoire bëriwul ak ñi muy ñi muy liggéeyal Balla Gaye lay bëre waaye saa yu taxawee ak ñun ak Balla Gaye dañuy gis ni Balla Gaye moo ko gën a pare ci pan ci mental ci ci gën koo nekk xoolee keroog Balla Gaye mi ngi ñàkk signature bi Tapha Tine ñàkkul maay wax yow de. Hmm? da ngeen toogee deux heures Balla Gaye ngi di ñàkk Tapha Tine ñàkkul. Eh, bon naar li nga wax na ah. sadis laa lay wax man làmb du ma ci bëgg di bugguma di tàmmuma di bëgg di wax ci koo combat xale yi di analyse parce que parfois dégg-dégg dafa jafe saa yoo waxee am na ñu am dégg-dégg am na ñu amul dégg-dégg am na ñuy gaaw yàqam ci tontu am na ñuy gaaw gaaw a gisoo yow saa yoo waxee ñu cikkal la mais ñi ñi nga xam ne dañuy dégg saa yoo waxee am na fu ñuy déggee mais dama ne Tapha na xam ni mi ngi bëre combat bu dangereux ci carrière mi ngi bëre koo xam ni daa nekk daa ñëw fekk ki fi mën mu daan ko daa ñëw fekk ki fi gën a dangereux ci làmb nekk fi taay roi des arènes mu daan ko ñaari yoon aller ak mi ngi bëre koo xam ni ay supporters am dañ koo wax doyal nañ ñun loolu loo loo indi bëggutuñ ko dafa attin combat bii bu ci narawee bés bu ci nalewee talafatal ay Balla Gaye day day dem yegg këram bu ñibbi Tapha Tine di soog a laaj lan moo xew. Hmm? te bëgg naa bëgg naa nga commandé ma tacos parce que maa ngi yëg quarante cinq tacos xaw ma ñu jëm fan amul ñu jëm France xanaa. non man man dama jombi ndax booy naar yaakaar naa ne fii làmb toll. Mhm. diggante Balla Gaye numéro 2 ak Tapha Tine la boo xam ne nii guddi yi ñu toll bokk na ci combat gën a métti ci wàllu làmb. Mhm. yu gën a ci làmb combat bii la. Mhm. mais ci Tapha la gën a métti am. Tapha Tapha Tine dégg déggu déggugul roi des te amul nim ci day ci làmb bëri doon mbër bu ko fi day. sénégalais yi di xaar ci moom loo xam ni par rapport ak li mu wane ci tafaatin mi gën a metti parce que ki muy bëreel nee naa la dafa def lu nekk ci làmb ba pare. man nee naa la ànd ak nit ànd ak du tax su may analyser làmb damay wax li li ma xam fi sama xam-xam toll ci làmb mais tafaatin kenn du warante ci état man nee naa la man yéen tafaatin bii ngeen ragal man nee naa la tafaatin bi bëri woon ak bala Gaye bëri laa gënoon ragal. tafaatin bi duma woon ay ñoom Bombardier état boobu tafaatin boobu moo gënoon garaaw hmm? boobu tafaatin boobu da lay doon une nga nga jub si ko mu arrière tàllal loxo bi boo ko ñooxoo mu koor la door la hypercule bu fekkee da nga ko forcé amuleen un mètre mu lalli la taf la dëbb la col la mu daanti ñaari njool Abdou Diouf ak tafaatin Abdou Diouf ak Cech ñaari njool yooyu xool da ngay xool ni leen daanee daf leen a jëli ci leen dàq leen placage ñu jaaxaan. waaw léegi nag man lenn laa lenn moomu tiital ci combat bi dafa am nalaw yu muy nalaw yoo xam ne ci làmb xaw ma lu mu doon def na ko sax contre Eumeu Sène dañuy analyser rek. Mhm. xam nga suñu téléphone ñoo moom làmb dañuy xool rek ba boo ci jaaree am ci expérience parfois mën nga bañ ci wax tout temps mais léeg mu bu jotee mën nga wax sa xalaat. Mhm. keroog xaw ma lan la indi moom moo ko xam. mais Tapha Tine même contre Eumeu Sène nalaw na nalaw boo xam ni Eumeu Sène ko ay coup ba ba ba mu lëpp xaw ma fan la ne woon moment boobu noonu. dégg nga Gris Bordeaux li mu bind mu ne Tapha Tine a un problème de morale Gris moo bind man bindu ma. Gris Bordeaux moo ko bind maa ngi koy gis. Euh, euh, grand champion nga xam ni moo gën a naqari bëre ci làmb Balla Gaye de 2008 laa ko waxal. Gris doo moo gën a naq bëri ci làmb mu muy xoolal muy xuloog man deux mille vingt quatre Balla Gaye léegi mi ngi wax ni Gris Bordeaux moo gën a naq bëri ci làmb mën naay wax ci suuf tàmmuma di wax ci kaw. Mhm. bugguma di wax ci kaw parce que man su may wax damay bëgg a wax lu ma maîtriser lu ma xam lu ma fekkee lu ma am expérience du ma bëgg di wax nii rek daa leer. mais Gris Gris bu mënee def demande dama ngi dugal ko ñu bokk ci waxtaan wi. Balla Gaye deux mille huit laa wax ni moytul ma Gris Bordeaux moo gën a naqari bëreel ci làmb fu mu dem nga tëkku ko fu mu dem nga tëkku ko boo yaakaaree mbër mu neex daal la ndax na sa bopp la plupart mooy forcé jël bu ñorul rëpp quatre appui loolu boo Bordeaux même buy bëri yow entraînement boo yéexamtee tuuti tëj bëri bi day mer bugguma dugg ci ay détails yu bëri yu bëri ay yu bëri booy xool loolu mooy yàq ay làmbam. mais man mais man mais man tey jii Balla Gaye Tapha Tine ñu ngi ci biir géew. waaw.